alhamdulillahi ma yàlla julli ci xëyrul xalqi rabbun jàlla alhamdulillahi ma sant yàlla julli ci xëyrul xalqi rabbun jàlla wa baadu maa ngi taalifal maymuuna mañ naa saxiira waaye mag la moona mooy bint sayxinal xadiimi caat ma moo tax ba mboolem mag ña jox ko war ma mu boole mbooti taaw ya ak yoy caat ya donn ca mbóot ya nekk tey baag mbir ya jàng nga jàngle nga wooteeg màggal fii laylatil xadri yaa koy sellal weer wi nga wootee gën ci mboolem weer yi guddi ga it moo faw xa mboolem guddi yi foo tudde laylatul xadar ci réew mi xel yépp dem ca soxna may fii saw mi aousubillahi min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmaani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin sayidina wa moolana mohammadin ilmakin wa ala alihi wa saxbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan ñi ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk di weeru koor di weeru ngëneel di weeru barke di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi ak Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi lool te wéral ko bu baax a baax te nu àndu ko ak moom euh, di am mbégte lool di amaat jataay boo xam ne dañu ci waajal euh, laylatul xadar muy guddi gu tedd googu nga xam ne soxna su baax si di soxna may mun a doon na ko taxawee te ak njabootam ci njiitu Serigne Modou Mahfouz ak mboolem ay rakkam ak ñi nga xam ne ñooy jarbaatam yëpp di taxaw taxawaay guddi googu di ko màggal di ko dundal ñu di ci nuyu bu baax a baax Serigne Abdou Lahad mi nga xam ne jataay bokk na ci eh, ay taxawaayam yi ne tax na jataay bi am kon jataay bi bokk na ci jataay yi nga xam ne ci lañuy ñuy waajale laylatul xadar ngir ñu di ci waxtaane ak fàttaliku lenn ci ay tomb yoo xam ne dina yitteel ngir di ko waajale guddi gu màgg googu nga xam ne moom la ñu dënmal ni ki fan yi di ñëw incha allahu taala ñu am mbégte nag lool tey jii ci jataay yooyu dalal ci kenn ci borom xam-xam yi kenn ci gëstukat yi kenn ci ñi nga xam ne ñu ngi leen di junj bu baax a baax ci wàllu xam-xam rawatina ci seenu njàngalin wu leer waaye ci seen xam-xam bu set mucc ayib muy Serigne Mourtada Bousso al Imam di borom xam-xam di ko xam ne jërëtut présenté ñu bari xam nañ ko ci dëkk bi xam nañ taxawaayam xam nañ it ni ko xam-xam ñore ak nim mu ko jitteele mom lañuy àndal inshallah taala tay ci jotaay yi nga xamne mom lañuy wajale lailatul waajale ñu fasiyene waxtani waxtaani tomb bu am solo bo xamne bu mata a la ndax fi jamono ju tollu ak ni mu rëbe ak ni mu bare ay mbir yo xamne ne daf cee laxasu ci jikko yu yaq yu bare bare kon mel na ne dellu si waat yu mel non da ci am solo ñu tan tomb jikko yu rafet ak ni mu ni ko yonu murit jëmmale Euh, jikko yu rafet yooyu nga xam ne moom nañu fa yéene waxtaane day tomb bu actualité boo xam ne waxtu nekk war nañ di ko waxtaane waaye jamono ji nag la raw ndax euh, yi fëkkaate ak euh, yenn comportement yi moo tax tey jii mu incha allahu taala tomb boobu la ñuy waxtaane muy al muridiya wa makaarimal axlaax ñu fas yéene ci ànd ak sëriñ Mourtada si ni ma ko waxee kon ngir njëkkante waxtu wi dañu koy bàyyi mu nuyoo su nuyoo incha allahu taala ñu ñëw nag ci biir laaj yi nga xam ne mo aju ci bir waxtan wi ko seigne mutla ñi ngi leen nuyu bu baax baax bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr tanazzalu almalaikatu warruuxu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salaamun hiya xatta matla al fajr jàmm jooju yàlla na ko yàlla wàcce ci àdduna si yëpp ba ay yi ngay dégg yëpp yàlla na ko fi yàlla jële ci barkeb laylatul qadr ci barkeb weeru koor maa ngi nuyu bokk yëpp maa ngi nuyu sunu waa kër waajur soxna Maymunatu Mbàkke bintu Cheikhul Xadim di nuyu sunu mag yu baax yi nga xam ne ñoo fa nekk Cheikh Mouhamad Mahfouz sëriñ Abdou Lahad di kenn ci man di sama xarit lool loo xam ne jaratul wax waaye nag noonu la ñuy fàttalikoo sunu waajur woo fa nekkoon soxna Bali. di ko ñaanal bu baax a baax ndax moo ñoo moom moo ñu jiite woon daan nañ yàgg nañu ànd liggéey bi ñu ngi koy ñaanal di ko fàttaliku bu baax ak njabootu soxna may gépp ak jullit yépp di sant bu baax a baax sama doomi bay, bàyyi sama mbokkum daara sama xarit sëriñ aboo busu talha mi nga xam ne moo ñu seet si fii tey ci daara ji ànd ko suñuy wëlëre sunub chaîne sunub télé ba tey muy waa alqadimiya euh, sëñ mbàkke mbegere ak ñi nekk ci waa xadim yi gépp di ñu meen ñu yàgg jëflanteel jotaay bi kon moom xam naa dinaa wax waa comi comité bi nga xam ne ñoo yor wàllu layatul xadr gi ne leen neex na bu ñu yabaloon suñ aboo ak suñ mbàkke mbegar rek doy na sëkk alhamdulilah ñoo ngi ñaan yàlla may ñu lépp lu ñu fi jàll rek yàlla nañu aw yiw incha allahu taala waaye nag ku ciy ñaan da nga ci ñaanal jullit yëpp da nga ci ñaanal cheikhul xadim waaye nag da nga ci ñaanal ki nga xam ne bajjan bu baax boobu nga xam ne soxna Maymunatu Mbàkke moo amoon yëg-yëg bu kawe boobu taxoon ba ñëpp dem di wuti bis sama classe gi di màggal lu leen neex moom mu jóg dem màggali yàlla dem xooli lu yàlla màggal mu màggal ko ca tegoon ci ci taalibe yi ndax ay kilifaam yi fa nekkoon jamono jooju mu demoon laaj leen ci ndigal Cheikh Fadil moo tax barke boobu des ba léegi si ci nag lu yonent bi sallallahu alayhi wa wax rek yàlla du fekk fu barke nekkoon mu di ko fa barke boobu yàlla na fa des bu baax a baax tiyaa ba jooju yàlla na yaatu mën naa defar lépp mën naa defar Sénégal mën naa defar àdduna jërëjëf sëñ Abo jërëjëf sëriñ Mourtada Bousso al imam eh, ci nuyoo bu matale bi kon ni ko annoncé woon léegi ci tàmbali bi mooy dañuy waxtaane lu am solo muy al muridiya wa makaarimul axlaax muy bu ñuy wax murid ak yu rafet mu mel ne waxtaan wi kon dañ ciy dégg ne dinañu wax lan mooy jikko ju rafet ak gis-gisinam ci lislaam gis-gisinam it ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ban waay la am loolu xam naa suñ mutlaam mooy doon sunu première question mooy jikko ju rafet yi nga xam ne moom lañu fas yéene waxtaane dafay lu jamono laaj loo xam ne waxtu wu nekk rek dinañ ci bàyyi xel rawatina diine lislaam bokk ci diine yi nga xam ne yi gën a soññee jikko ju rafet ci la bokk tàmbale ko ci alxuraan ba ci sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam jikko ju rafet jooju suñ mënoon a xam lan mooy ab wàccuwaayam makaana bi mu am ci lislaam te mooy ci alxuraan ak xadis lan lay doon. Euh, jërëjëf euh, Cheikh talxa Talha Abou Bousso ibnu sëñ bu Bousso moo tax ñaan Abou Talha euh, jikko yu rafet mooy lépp doy na sëkk awwalu yuudau fil misaan yowm al qiyaama mooy xusnul xuluq bu bis penc ñëwee lépp la ñu lijjanti dañuy wax ne tappaleeg lu leerut moom mën naa yem ci àdduna waaye bis penc lépp lañu la ñu leeral yàlla ñu yàlla may feex rek su waaye li ñu njëkk teg ci balage yi di ko càmbar mooy jikkoy rafet kon xam nga ni jikkoy rafet wàccuwaay bi mu am kawe na jikko yu rafet ak mu murit mooy sa ñaareelu laaj bi ngay laaj incha ci kanam waaye jikko yu rafet ma tàmbalee ko léegi mooy yoonu murit yow xam nga bu baax a baax ne sëriñ bi yoonu murit ñëpp dëppoo nañ ci ne ci ñett yi la def muy chanram muy sëmbolam daanaka nga xam ne moom mooy mooy moom moom la am ilmun naafi al amalul al adabul mardi ak al amalu saalih kon day mel ne ñett yi nga xam ne bu doon yoonu murit lu ci ràññiku la ba nga xam ne day mel ne ñetti wos la benn bi mooy ay teggin al adabul mardi mm-hmm. du lenn rek lu jikkoy rafet mm-hmm. li ci des na bàyyi ba ci laaj bi ci mujj yi waaye yoonum waaye waaye jikkoy rafet mm-hmm. mooy lépp li waykat bi wax rek wa innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat axlaaquhum zahabu yàlla subhaanahu wa taala soññi nañu ci lool ci jikkoy rafet daanaka it nag alhamdulilah jàngal ñu wax ñu moo la mooy jikkoy rafet yàlla subhaanahu wa taala bu noppee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam miy leeral loolu leeral ko borom xam-xam yëpp dañu ci di ko leeral ba ci suñ borom xam-xam bii tey di Cheikhul Khadim yemuñ ci di ko leeral waaye dañ koy jëfandikoo dañ koy pratiquer mooy luy jukko yu rafet mën nga ko jàngat ci moom bu ma ci doon joxe misaal sunu soxna su tedd si soxna may munatu mbàkke boo bëggoon andi makaarimul laax bu la neexee xadis bu mu la andil wala laay bu mu la andil mën nga koo tekki ci moom mën nga ko ne diw comme ni meloon di soxna si ñii la daan def mën nga ko noonu nga ko mën a joxee ndaw ci doomi sëñ Touba yi noonu nga ko ki ki magoon ci doomi sëñ Touba yi muy soxna Fat wala sëñ Modou Moustapha it nekk noonu kon ñoom yemuñ woon ci jikkoy rafet nekkutoon loo xam ne ay théorie lay doon waaye dañ ko daan pratiquer loolu nag ñu ngi ko royee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla yonent bi ci jikkoy rafet la ko tagg wa innaka la ala xuluqin azim ci wu foor woowu ci rafet yonent sallallahu alayhi wasallam nee daana def bu jëlee seetu xool kanamam teewut li ko ko yàlla di may may di ko ca tagg ca mu wóor ko ne du tàggoog jikko yu rafet nga xam ne luy jikko ju rafet rek yonent bi moo ko yayoo gis nga ni ko waykat bi waxee kullu fadilatin lahu bi afala ka akmalin wa ajmalin wa ahsana lépp jikko ju mat ju ne moo ko gën a mate ci yonent bi sala moo ci gën a jiitu wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahara lu mislu xattula yura wala yura fi chemi la Sëriñ Tuubaa wax radiyallaahu taala wa huwa akmalul waraa xalqan wa xulqan yonent bi nee naa la bu mosaa seetu daraan wax yow yàlla comme ni nga rafetale sama kanam gi yàlla ngeen rafetale sama jikko yi yonent bi moo gën ñëpp waaye nag moo gën a baax jikko ñëpp luy jikko ji rafet meloon na ni luy jikko ji suufe melu ni woon li mu wax ci xadis bi rek allahu yuhibbu maalil umur wa yakrahu safa sifaha yàlla dafa bëgg jikko yi kawe bañ lu sagare lu tuuti loolu am na solo loolu da nga ko xamee bu baax ci kilifa yi boo ko seetloo lépp lu jikko yu rafet mooy lu kawe loo gis rek jikko yu suufee mooy lu ñàkk solo détail ak lu amul solo mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la meloon yàlla soñu ñu baax a baax ci jukkoy rafet doy na sëkk mu tagg ci yonente bi te ñun yonente bi la ñu yàlla roy loolu xat kaan lakum fi rasulillahi uswatun xasana danañ ci xamee ne kon jukkoy rafet mënta ñàkk ci ñun ñu mel ni waxaan ñu fu bari bari bokk na ci wa is axasallahu misaaqa bani israila laa taabuduna illallahu bil walidayni ihsanan wa zul qurba wal yatama wal masakin ba ba rafet mooy bokk na ci dee leen jaamu yàlla bokk jukkoy da koy jaamu yàlla na nga fonk sa ñaari waajur bokk na ci xusnul xuluq wa qad rabbuka allaa ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana mi ngi lim ak say jege na nga jëflante ak ñom jëflante wu rafet dem na ba mujjé ko lu am solo lo xamanteni man na tejj tëj yu rafet moy ñi ñi deen wax ci ñom lu baax wa quulu linnaasi husnan day japp na ni Abo yeen borom xam-xam ngeen ci may def conférence yu bare bare bare jamono ju ne soxla na waye suñu rew mi jamono ji soxla nañ ko nañ xol lu rafet nit ñi ñu di ci wax lool da nga ci xamé nit ki man nga xam ci mom lanen bare na waye nak bo démé ba wax mënu ko ñak def deel wax lu baax ci ñom delloo xol rafet Serigne Saliou daana waxoon na wax ju am solo booba ay xam naa ay xew-xew yu fi xewoon wax yi bari ci lool critique ba mi yedd ñim nyim nyim ñim sañ a yedd ñun njaboot gi wax na ba bayi len leen yàqante der yi alxuraan de foo gisee mu wax wax ju am maanaa sax waxam yëpp sax na la mel boo gisee mu tudd sikkus nit yalla fu mu tuddee ay ayib ak yu mel noonu li ci gëna bari daa da la bëgg jéggel ak bëgg nga moy tandiku way doom adam fu mu ko tuddalee morom da ko bëgg xass rek ko xam ci mom safane والله خم جت مملو باخ لو بره بره لو خاني من غو خ تدق دق للو باخ لي موجنا بري فوف نك كنا يلا لول متى جو خلو لي ناس حسنن مثال تي دي كو جرفت جو خان تني يلا دنيو كوي دنيو كوي ديجل يلا ديجل عن دي كو جرفت جنجال نيو كف بره بره بره demna bay bokk na ci jikko rafet moy di di muñ manam di di di neub sa mer wal kazimin al ghais wal afin an nas wallahu yuhibbul muhsinin xam nga bo gisee ciow lu bar ligi deg lepp mer koy nit ki da nga tooñ kilifaam léegi-léegi mu mere la da nga tooñ leen ci ay intérêt mu mere la bu daga politicien da nga tooñ président parti mu mere la da nga leader mu mere la xol bu tàng ak mer mooy waral nit ñi di génne yi ngay gis ñuy génne moo tax ñu koy génne ci réseaux sociaux yaa ngi ko gis guddeeg bëccëg wax ju yu kenn mënta gis moo tax ñu ci tiktok yi ngay gis ñenn ñi am fit sax dañu filmer seen bopp jàllale ko waaye boo xoolee lay ëpp ci la ñuy wax wax ju demee doy waar rek lay doon waaye buñ jëloon jikko yu rafet yi ne bo meree dee ko xam nga ñëppay mer yàlla xam na ne ko nit nit doomu adam mënta ñak mer waye bo mere nëbb wal wal min al ghaysa yàlla tagg na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam law kunta fazdan ghaliza al-qalbi lan fadu min hawlika bo nëbbee sa mer ba noppi jéggal nit ñi xam nga mer nga moom ndax tooñ nañ la def nañ lu tax mer nëbb nga mer mi mooy réagir oo ko ci Facebook wax ko defoo déclaration ci télé wax lu rëy lu kenn mënta dégg fayu waaye nëbb nga sa mer ba noppi jéggal ko loolu moo am solo loolu bokk na ci jikko rafet yi ñu alxuraan jàngal dañuy nettali xisa bu yàgg-yàgg nit koo xamante ni kenn kum yilif da ko doon daa am lu ko doon liggéeyloo da ñenn ñenn ñi neeñ da ko doon sottil ndox xam naa kooko gaañ ko gaañ-gaañ bu métti xam nga rek ak ak buur kooko mer lool ba a mer mere na ko mi ngi mel ne ko yoroon néeg bu sedd nii rek xale boo doon defloo dara ci donga yi ñëw am ayibal fi dara daal ba mu meree donga ba ne ko ah wal kaasimin al xays kooku ne ko jégal naa la na na mu ne cell bokk jégalu ko waaye nee na mu tegal ko ci ne ko wala aafina ani naasi mu ne ko jéggal naa la kon ci li nga ma def xam naa dong ba day ku soob jékki-jékki ne ko wallaahu yuhibbul muhsinin defe naa boobu ab jaamam la woon nee nañ mu ne ko goreel naa la demal loolu nag lu ñu war di jëfandikoo la kon yàlla yonent bi sallallahu alayhi mu wax rek dane yàlla yow ni nga rafetale sama jëmm yi yàlla na nga ni rafetale sama jikko yi loolu ci lañ ko war a roy wax nañu ba tàyyi ci xadiis it xiyaarukum axaasinukum axlaaqan ki gën ci yéen mooy ki leen gën a rafet jikko xadis bu gudd a gudd sëñ boo xam nga ko alaa axbirukum bi ahabikum ilayya wa aqrabikum minni majalisi yawmal qiyaama axaasinakum axlaaqan al muwatti'uuna aknaafan leen wax ñi nga xam ne ñoo ma gën a jege bu yawmal qiyaamee ñoo may gën a jege fuuf xam nga jege yonent bi mooy lépp mooy ñan ñi gën a rafet jikko muwatti'uuna aknaafan loolu lay tegtal rek mooy ñi nga xam ne neex nañoo jaar seen kaw jàll tekki na ko ne allazina yaalafuun wa yulafuun nga xam ne neex nañoo miin miin leen yomb na dañuy miine maam boo leen gisee bëgg leen bu buñ la gisee bëgg la kon nañ góorgóorlu ci jikkoy rafet alxuraan daanaka ci gàttal lépp rek ci jikkoy rafet ci lay ci lay soññee lépp fi mu tàmbalee ba fi mu yem jikkoy rafet nag dafa bari euh, sa digganteeg nit ñi ngay jëflanteel waa mbedd mi sa digganteeg sa njaboot say soxna sa digganteeg sa employé yi ngay liggéeyal ku ci nekk am na jikkoy rafet yoo war a seq ak ñoom yonent bi saa salaam daan wax ne xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahli xayrukum li ahlihi maanaam ki gën ci yéen mooy ki gën ci waa këram man nag maay ki gën ci waa kër dañuy wax ne borom xam-xam yu bari tekkee nañ ko ne ndax moo gën a rafet jikko ku ci ne day jëflanteeg yow ci jikkoom ju rafet waaye di jëflante ak yow ci ni nga mel nit xam nga dana nekk jigéen soxnaam léeg-léegi euh, bu ko toppee rek léegi léegi xëy na laneen mën na ceexe waaye yonent bi dañu daan jëflante moom ci ci jikkoom laan jëflante ak ñoom moo tax ku ci tàngal lool moom mu seddal ku ci andi fitna lool moom mu teggi fitna fitna yooyu boroom xam-xam yi ci loo xam ne solo nañ ko ci Seydina Aïcha solo nañ ko ci Xasan solo nañ ko ci bàyyi Xasan it mooy Ali ibn Abi Talib daana wax ne makaarimul axlaax daje na ci ñett ci fukki yëf yoo xamante ni makaarimul axlaax génn ko waaye boo ko xoolee lépp rek mooy mooy mooy ak mbaax rek makaarimul axlaax mooy ak mbaax mooy li ñu woon wax ji maalil umuur ak moyta mooy jëf ju kaawe ca moyta ni ko jëf ju suufee dane loolu mooy sidqu fi sidqu lisaan booy wax na wax na nga wax dëgg na nga dëggal nit ñi ci nit ñi it ku lay jox nga ku la laaj nga di ko jox rafetal jikko bu baax a baax ci jëflante koy delloo lu rafet nga rafetal ko bu baax baax mooy mukaafa ci jëf ji ku la defal lu baax nga fay ko ko jokk bokk yërëm ku la tooñ ndax nit tooñ mënut a kuy dundaloo nit faw mu di la tooñ nit ki mu def lu la gêné rek léegi dana la jëw nit ñëw netti la ko xam nga nit ñi dañoo mën a tooñ léegi dana la jëw kenn ñëw rocc ko wax la ko na nangam dana bind dara léeg-léeg sax publier ko du la ci jublu kenn ñëw ne ah diw de li bind dafa mel ne yaa ko tax moom wala nga gis sa sax même bu ñu la ko waxut da nga ñaaw jot ci ne kii maa tax muy wax waaye nag da nga jéggale nga koy jéggal moo mu ne kon ngay jéggal ku la tooñ niki non batay kula amel ak nga nangul koko niki non batay nak neena nak jikko yep yi ci gëna kawé nak moy al haya moy kersa waxna len ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna kenn ci sahaba yi amna ñu ne usman amna am na ñu ne keneen la ne ko inna fika xislata xislatayn yuhibbuhum allah am nga ñaari jikko yoo xamante yàlla bëgg na leen na nga ci góorgóorlu mu ne ko ban ak ban la mu ne ko alxilm ak xayaa mooy kersa nikk noonu ba tey ak lewet kon xam ngeen ne ba tey ci jikkoy makaarimul axlaaq la bokk sëñ mi ngi ñu koy ñaanal lu bare bari jikko yu rafet wa hab lanaa makaarimul axlaaqi maa tahaabub bila shiqaaqi jàpp naa nag buñ tënk woon ci jikko yu lu bare bari ci xew dana wàññi ko benn nit nee na ndeysaan benn xakim nee na jamono ji li ko yàq jikko yi moo moo baaxatul léegi jikko yu bon yi nag moo feeñ ba jafe-jafe yëpp la daan ne koo wóolu mu wor la da wóolu nga wax ko dara mu genn tekke ko nu bokkale ni ko waxee waral lu bax nga bëgg lo wax jublu ci lu bax nit ñi dañ ko tekke nañ leg legi da ngay gis sax ndaysan ku jàngale surtout yeen borom xam-xam di da ngeen ci da ngeen ci yeen ngi ci dajje fitna ju bare bari sëñ aboo mu yor daaraam bax lool sonu wala mu dem def di fa def fatwa ci juma ji wala mu def bayan ci benn jakk wax lo xam woor na ko ni yalla ko wax yónnente be ko wax sëñ touba ku dëggal waye nu ne lañ koy tekke manam mom bu xeye sëñ abo safaanum ñu waroon xëy yendu koo tagg ak di ko ñaanal waaye dañu xëy dal ci kawam te ñu xamul dara lay doon ak ñu topp seen intérêt ak ñu topp loo xamante nii rek li nga wax dafa safaan ak ñoom suñu aboo mi de waxam ji tey ci ñun la jëm ci ñun nangam yi la jëm xool tudde xel genn kuréel ne ci ñun la jëm wax ji ci moom la jëm wax ko lu ko neex commentaire da nga koy rus a gis sax ñaari fa ma gisal lu mel noonu dama ko supprimer supprimer wàllu commentaire loolu lépp nag ñàkk ci jikkoy rafet rek moo ko waral koo góor góor ga loolu bokk na ci li mu wax mooy boobu nee na koo wóolu la war mooy loo wax nit dana wet kenn wax ko wala mu tekkee ko na boo dénk ko nit alal wala lu jëm ci alal boo jëflante ak moom dana la war nee na it li gën a métti mooy koo wéetal waxtaan bu génnee dana nett li nga wax bàyyi li mu wax boo ñëwee ni sëñ aboo mii day euh, ma dem ne sëñ Abdou Lahad masalan sëñ aboo day wax dëgg yàlla li mu wax nangam doy na waar lool bi ñu waxtaan waaye am daal ni ma ko gisee wax lu bare bare ci ci moom mm-hmm. loolu yàq rek nga ci jublu ki ko wax ca ki ko wax fàtte na ne bi muy wax moo ko sëñ Abo ñoo doon waxtaan ñaari nit doon moom daa dem xool benn xaaj ba rek nettali ko ne ko ah li la wax de nangam ak nangam ca loolu it xam nga la ndax la ne la diw de bokk nañ jotaay wala def nañ càngam waaye wax na loo xam ne doy na waar nett dëgg la la mu la ko ko wax de mën naa nekk dëgg waaye day moom waxu la la wax moom it ndax booba ñaara doon waxtaan ca ñaar nit bi ñu waxtaan rek ku ci nekk dugg nga ci kii wax na kii wax na moo tax mu ne woon koo wéetal wax lu mu mën a doon bu génné wax li nga wax bàyyi lim wax loolu nag nañ koy moytandiku seigne touba mi ngi ñaan bu baax baax ci ji koy rafet waxab la makarim al akhlaqi maa tahaabu bila shiqaqi wa waxaat ñu fane nit nañu wa bin nabii habliya yatakhalluqa bil al azimi daban mushfiqa kon lim ñaan ci ji koy rafet bari na fofu lay tejje bala nga andi ci laaj beneen bu ci dess amna lu am solo lo xam seigne touba def nako ci ji koy rafet donte léppam ji koy rafet la ci le sosse yoonu murid wi nee la ci xam-xam bu rafet al munafiq wal amalul mardi wal adabul mardi wal amal amalu saalix jëf ju am njariñ jëf ju am xam-xam bu am njariñ ak jëf ju baax ak teggin yuñ gërëm teggin yuñ gërëm nee naa loolu ci la sëñ bi tabax yoon taxawal yoonu murid wi nga xam ne daanaka bu fekk ne symbole la foo ko fekkee rek da nga ko fekk ci ay waxam ak jëfam noonu loon yare da lay jàngal xam-xam fexe ba ngay def lu baax ànd ak yar loolu doyloowu ko woon liggéeyal nañu ci lu am solo ay école yu baree bare yoo xam ne day defar jikko rek moo xam fa ñu jàngale alxuraan sëñ daam ma ko doon jàngale ma ko doon defaraale jikko yi moo xam góor ñoom fan jàngaloo la jigéen ñi muy sëñ daam Abdourahmane Lo sëñ maam sëñ Mbacke Bousso wala maam Thierno maam Mor Diar ñi doon jàngale kat xam-xam yi bari woon nañ lool ñoom ñëpp it ku ci nekk ñaar yooyu nga boole woon ñett yooyu moom ki ngay jàngal ni nga koy jàngale ni nga koy yare moo tax sëñ bi kon jiilul awwal ñi mu yaroon ñëpp ci loolu leen yar Cheikh Adama gay ci la ko yar li koy tegtale sëñ Touba bi bi Cheikh Adama jaayanteeg moom ca Mbacke Kajoor bi mu taxawal yoonu murit maanaam message bi mu ko njëkk a jox rek lax axlaax feeñ na ci bu baax a baax baax mooy way yu neex yooyu xam dan li man xat aba ba suala an alladina karihu dalala mooy leeral na ko yaay moo war a doxe deel jaamu yàlla deel mooy tandiku jaamu keneen ku dul yàlla deel wettali ko yàlla jikko la mu ko wax lépp rek la yu rafet jikko yu rafet nag mooy jikko ju kawe jox dana tàbbalit ko àjjana noonu la yare mag ñëpp sëñ sëñ Cheikh Adama Gueye moomu ña ci topp sëñ Ibrahima Sarr Njaañ sëñ Daam Abdourahmane loo maam Cheikh Ibrahima Fall mag ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ku ci nekk yoon woowu ci la jaarale woon yoonu murit kon day mel ni ci loolu la ko tabax yemutoon ci loolu ñun ndaw ñi nga xamante ni ginnaaw loolu la ñuy ñëw dana gën a yaatu incha allah ci ñaari laaj bi liggéeyal ñu téere bu am solo boo xamante ni ci foofu la jëm ci ay teggin rek la jëm ay teggin mooy jikko yu rafet mooy naxa juqadaa il xaaj naxa juqadaa il xaaj téere la bu am solo ku ñuy wax Mouhamad ibn Ahmad alxaaji bokk ci giir gi idawal xaaj ñu ma xam loolu ca Mauritanie ca ñu bari ci ñoom doon taalibe sëñ bi moo wayoon moo taalifoon wesar wesar woowu nag la kenn ci magi sëñ Touba yi nee naa la sëñ Touba magam yëpp ci loolu leen yar sa maam ju baax duñu daan wax sëñ Moor Kuna Mbàkke ku baax a baax la woon ci saabiquunal awwaloon yi la bokkoon ci ñi njëkk sëñ Touba ci la bokkoon dañ daan wax ne ci ñi ko njëkk a jàngal xasaay te ci la bokk moom sëñ Moor Kuna moom ku baax a baax la woon ci ràññi ne ko buñ sañoon de nga bindal ñu ci lu jëm ci axlaax yi lu jëm ci ay teggin sëñ bi wayal ko téere boobu muy na wayi Muhammad ibn Ahmad muy nax jox daa el xaaj fii ma min al adabi ilayhi al mooy kon way naa téere boo xam ne li ci aju ci teggin li ci aju ci jikko yu rafet li ci murit di sàkku mi ngi ci kon téere boobu rek euh, yéen jàngalekat yi yéen borom xam-xam yi ngeen ci sonn di ko tasaare di leeral li ci nekk di ko jàngal seen njaboot gi gis nga sax mi ngi junj loolu la ko sëñ sa maam jooju sëñ Mour ku na wax ci jëlbeen ga haja wa innil yowma zu ijaaba baadul muridina zawil inaaba xat talabu nadman xawaata adduba liyata addabu wasaaka wajaba is kullu man bi xayrihi raama tibaa fa innahu yuxramu fawsan wa intifa ku bëgg a jaamu yàlla ca jaariwoo ko ci ay teggin mm-hmm. jaariwoo ko ci ay jikko yu rafet mm-hmm. da nga ñàkk ñaar yëpp doo jaamu yàlla bu soobee yàlla xañ xirmaan da nga ci jël daañ la ko xañ kon mm-hmm. li borom xam yoo wax rek al adabu xayru mawrus teggin lu nit ki donnu donnu teggin donn ko ko moo gën donnu ay teggin moo gën doon leen moo gën xaalis suñu boo ci laaj bu njëkk bi kon jërëjëf sëriñ Mourtada Bousso al imam ci tontu bu leer bi ak waxtaan wu am solo bi nga xam ne wax na ko ci jikko ju rafet mu mel ne leeral na jikko ju rafet ne mooy lépp léppi lislaam lislaam boo ci génnee jikko ju rafet dara dootu ci des ndax euh, boo xoolee yonent yëpp jikko ju rafet moo leen taxoon a ñëw te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi koy gën a firndeel ci ne bo innama bu'istu ma utammima makaarimal axlaaq lu ñuy mottali nag luñ tàmbali lañ koy def kon day mel ni yonent yu ko fi jiitoon yëpp seen mission moo doonoon fexe ba jikko ju rafet jooju nekk ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it mu leeral ne bi ko sunu borom di tàgg tàggewu ko askan bu baax ak yu bari waaye daf ko tàggee rek jikko ju rafet te jikko ju rafet dëgg-dëgg mooy mooy mbaax yonent bi wax na al birru husnul xuluq mboolem lu ñuy wax ci ay jikko yu rafet boo xoolee dëgg-dëgg mooy mbaax rek te loolu mooy moom la doon junj léegi mu junj yoo am solo yoo xam ne it lu mat a bàyyi xel la ci nit ñi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax mooy jikko ju rafet bokk na ci li koy tàmbalee yàq léegi mooy ñaaw njort bi nga xam ne junj na ci lu baree bare ñaaw njort mooy ñuy rafet njortu ci doomu aadama yi ba noppi di di di moo boole ko yéene nit ñi it li nga xam ne moom nga yéene sa bopp te loolu lépp ay melokaan la yoo xam ne lislaam daf cee lu bu baax a baax a baax ngir rek defar ab société ndax jikko ju rafet moom mooy léppi doomu aadama saa yu génnee ci nit dara dootu ci des day rafle woo moo taxoon yonent yëpp ñëw moo taxoon nit ñu baax ñu ñëw moo tax diine ñëw moo tax it alxuraan ñëw kon loolu lu ci am solo la deuxième question bi rek ngir njëkkanteeg waxtu wi muy bi ginnaaw bu ñu xamee lislaam ni mu joxe gëdd ak solo jikko ju rafet ba nga xam ne lépp lislaam sax jikko ju rafet la kon day mel ne Sëriñ Tuubaa di laanu junj nga ko ci sa tàmbali sax ab wooteem kon moom ci loolu lay jëm ndax moom du woote lenn loo xam ne lislaam joxu ko benn foor bi joxu ko benn makaana bi kon. waaw yoonu murit ak jikko ju rafet. jërëjëf sëñ Abo yoonu murit ak jikko yu rafet daa yoonu murit mooy jikko ju rafet murit bu jikkoowul jikko yu rafet war ngaa xoolaat sa bopp bu baax a baax ndax xam ne li ngay mbub mi li ngay woote woo mbub mi ngay woote woo soloo ko ndax sëñ bi yoonu murit ci jikko yu rafet la ko tar la ko la la ko la la la la ko la ko sëse moom la ko defal muy ci silaayam wax naa la ko léegi ilmu naafi al amalu saalih al adabul mardi ca Mbàkke Kajoor ba mu wootee ba tey jii loolu rek mooy li fi am ñi fi nekkal njaboot gi boo ko xoolee ci seen i jëfin ginnaaw bi muy xalifa bi xalifa yi yëpp njabootam gi ba tey seexam yi ñi nga xam ne defar na leen ñëpp taalibe bi ñëpp ci loolu la ñuy kii misaal mi ci gën a kawee xam nga ko sëñ bi léppam na mu exemplaire la ci jikko ju rafet wane na ko façon bu nekk waat ci jëmmam la ko tàmbalee loolu ñu daan wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne jikkoom dafa rafet ba laa yu sammi umra an luñ man ñun gêné nit toog loo xam ne bu ma ko waxee de dana gêné sañ aboom yi lool laal na ko wala laal na mbokkam wala laal na ko sëriñam kum fonk ñun dafa mal ne bala ñoo am lu ñu neex nit ki daa def lu mel noonu dana ko wax wala mu bind ko yuy gêné gêné rek loolu la ñuy liggéeyee ca loolu dëgg-dëgg dug nite nite bokk na ci nit ki nag nañu roy yonent bi ci nag nit ki ngay wax ci moom lu baax te respecté ko mhm. respecté nit nag bokku ci jotaay bu ngeen toog ba ngeen a tàggoo da nga fa wax lu ko gêner lool lool lool loo xamante ni léeg-léeg dangay ngay ëppal gaaw wax wax ko wala léeg-léeg sax yaa koy tey bëgg lu ko naqari gis nga sëñ bi daana rafetal bu baax a baax loolu nuru na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daaw dégtal nit ki wax ju metti mhm. bu wax dëgg jotee dana ko wax mhm. dana jàngale waaye mën ngaa jàngale ci doo xas kenn mooy yàlla jaal jaaloo nga kaf ba wax ko ko mm-hmm. bu dee ko def nangam nga juum boo ko gisoon muy jiite sax balaa sa xol a sedd da nga kaf ba jekk-jekk wax ko mm-hmm. ustaas boo gis muy waaraate ci télé bi mm-hmm. boo ko meree wala balaa sax xol a sedd danga dem def audio léeg-léegi sax ki koy wax du doon dëgg nee naa leen dee leen tey ci loolu ki koy wax du doon dëgg loo ci man di tey dem noonu nag enregistré la ne def naa man naa nga mën loo ko mënal fu koy weddi loolu bëgg ko séene te lol ngeen xam ci xéeti li ñu xassul ihlami la bu for for war dañ ko moyte ni ko surtout ñu julli di moy nak yeen ñi nek ci daawo bi ngeen deugër ci bañ ragal faaw nak ki di bari da nga wax lu baax bu pare kenn mere la jóg wax ci yow lu kenn mënta dégg waye nak jappal ne lu mu la waxal ci lu bon wax nga lu baax lu ko ëpp fuuf donte sax kenn mm, du kenn du leen tekkale mooy bu bu ragal lo nit jàpp naa nag ci ñu koy def bëgg wañiku lo nit ki rek ci la bokk ndax duñ mu mukk ci ku baax ku bax ku nek rek nit ki dana juum ba deele ci lo xamanteni da ngay tit ñen ñi duñ ko jallale ci radio yi ak ci télé yi waye dañ dañ la ko wax bo taggo nit bagal dañ ci dee lo xamanteni dana yak sa xel mi léeg legi leg léeg wax la ko ci serigne bi nga nek leg léeg wax la ko ci ko fonkon lool waye loolu lépp pexé seytaane la ca du jikkoy la axlaaq serigne bi da ko daan téré daawu ci yar kenn daawu ñum nekkalon mu yar leen sax amu ñoon jottuk loolu xaadima jaxate kala gis nga bi mi tagg njabootu serigne touba gi donga bi mi yar ci sabab su amone sëñ bi da ko yebaloon ci ci makaaramul axlaax rek mm-hmm. xaa di mos naa jàngal sëñ bi mm-hmm. taxoon uh, fu mu doon sanc mm-hmm. sëñ bi yebaloon leen fa ñu demoon doon ko defaraatal kër ga ak defaraatal néeg yi xaa di yéemu na ci ña ko sëñ bi loon ak jikko yu rafet yi ñu yor tagg na leen lool xasiida gi gu am solo mu rabbuuna ci la tàmbalee mu rabbuuna xat xaddu bi ab saarihim xadda mooy lépp luy jikko ju rafet nee na daal wóor na ko ne mi ngi ci njabootu sëñ tubaa taalibeem yi sëñ tubaa noonu la doon doxee léppam rek jikko ju rafet la ci la doon yare ci la so taxawale yoon wi gis nga ñooñu ma wax ñu doon tagg njaboot njabootam gi dongaam yeeg taalibeem yeeg njabootam gi ci loolu lañ leen tagg ndax loolu rek nekk ci ñoom te arab yi dañuy wax ne wa in billazi fihi yarshahu sëñ bi doon ñu jàngal jikko ju rafet am na ci wax na ci lu bëree bëri nazman wa nasran lenn li way na ko lenn li wasar na ko lu bëree bëri bëri ci makaarimul axlaaq day mel ne xaw ngeen mana mën organiser colloque bu maga maga maga a mag ca thème bi moy doon makaarimul akhlaq andal andal andal muri wa tarixal muridiyya wala wa cheikh lo ci wax baxna da nga ci am lu bare bare bare bare bare bare lo xam luñu lu pratiquer lay doon lu leer lo xamante ni ko joxe exemplaire ak lo xamante ni sax man na nek lo xam théorie lu bind lay doon waye lañ ci am exemplaire yu bare bare señ bi du ko jëfëndiko bu metti metti ci côté yëpp ñim video ginaaw bi yoonu murid di dox ci lool ba tay ji señ Muntaxa mi nga mom mom lañ tudd moy rasul akhlaq jikko mom ci mu ci mom lay mané sëñ bi doon nañu jàngal makaarimul axlaaq ci lenn ci rasaailam yi dane bokk na ci xadis la euh, sukkandikoo rek enfant man zalamaka ku la nga jéggal ko ku xañ nga jox ko ku la jàmbu dog la nga dem jokk ko loolu joxe na ci misaal am laajoon nañ ko makaarimul axlaaq mooy lan mu ne ku la tooñ jéggal ko ku la xañ masalan su sëñ doon séddale dara téere wala yu mel noonu joxuma alaa kulli xaal man bu may séddale na doon ki may njëkk jox waaye bul jàpp mu ko ni kee lim la xañ a tax niki noonu ba tey ku la mbokk mu la jege dog la nga xamni ne seeteegu la na nga dem seeti ko loolu naa ci joxe misal sañ abou mi ba léegi musuma ko musuma dem ci kërëm ci tay ji mi ngi ni déplacer wu ñëw seet si ma alhamdulilah loolu kon ayé la ci bakkar mu akhlaq ci wessar bu dee ci nazmu mu wax ci lu bari bari waxna len téré téere nga xam ne na ma ngi wax way yo xamni moko ci way ya ya taliban riddal al khalaq laazim bihi makaarimul axlaaqi fa bil makaarimi takunu taahira kama bihi taalu dawaamin qahira yow mi nga xam ne yaa ngi bëgg ngërëmul yàlla subhaanahu wa taq kook nga taqoog makaarimul axlaax ndax nee na ci makaarimul axlaax ci ngay laabe mooy li nga xam ne nii moo lay dimbale ba faaw ci kaw da ngay noté ba faaw ci kenn du la not daanañu wax it lu am solo wax ju am solo moo xam ne da koo wax bindaat ko nee na bokk na ci njëriñu makaarimul axlaax day mooy jikko yu rafet day génn nit ki ci rasaa'il mooy bon bon yëpp ak taq-taq yëpp ak ayib nit yëpp daana wax ne bokk na ci njariñi makaarimul axlaax day yëkkati daraja yi nit ci àdduna ak alaaxira ci defe naa nit ku nekk it yëkkati ko darajaam rek moom lay mën a am daanañu wax lu am solo loo xamante ni gëm nañ ko bu baax baax waaye gëmee nañ ko ci moom daana wax ne makaarimul axlaax jikko yu rafet dana dimbale nit ki ba mu not ay noonam te du xeex ak ñoom du dóorante ak ñoom du werante ak ñoom du dàggasante daal daan wax ne makaarimul axlaax dara gënu ko euh, day fóot nit ki ci ay jikko yu bon kon mu tasawif xam nga tasawuf moy ñaari ngay bolé mhm. at takhliya wa taxliya da ngay sangu mhm. solu kon nak mutasawuf ne jital makaram la axlaax ndax mhm. seigne touba wax nañu nañu dana dimbali nit ki dana ko fot bam set wicc wicc wax nañu ni ayib nit ayib ji nit ki baxo am te xam nga ne mo sonal ku sonn makaarim alaxlaaq dana ko ci genné wax nañu ni ñu day yëkëti daraja nit ki daraja rek bëgg ku sañu da nga am daraja aduna ak dana ko maye tegal nañu ci lu am solo it gëmé nañ ko ci seigne bi dana tax nga note say non ca do xex ak ñom doo leen ñoom doo saaganteeg ñoom sëñ bi fan la jaar noonam yi rek macha allah ba mu ne jonet ba léegi rek da ngay xam ne ba mbakki Kajoor gi jàllee Mbàkke ak Tuuba ba diggante boobu jàllee ci lañ tàmbali diggante di ko convoqué muy dem ak di ko ndar léeg-léeg mu dem léeg-léeg mu yebal kenn ci njabootam maam Thierno Ibrahima Fati demal na ko yemuñ ci loolu jëkk-jëkk génn ko réew mi génneen wu doy waar génne goo xam ne àndut ak doom àndut ak soxna àndut ak taalibe ci koo xam ne gis nga lim doon dund bi mu fi nekk loolu ko gën a metti nga def ko gor su toll ne moom nit ku yiwee ne mm-hmm. la nekkee woon na leen bu méttee méttee méttee ba tubaab bi seeni seere ñenn ñi ci ñoom ñi ci dëggu seere yu bi nee nañ mm-hmm. dëgg dëgg lu ci bëree bëri am na sax ku wax lu daw yaram mm-hmm. ne ne dañ koo tooñ wax ju daw yaram daan ne wëlbati na sa wax ji ndax nee nañ ca jort na ne problème mu langue bokk na ci leen sonaloon dañu daan tradirante ak ñoom ay wax la muy wax duñ ko accélé ci ñun ñun tam li ñuy wax duñ ko wax duñ ko war a waxe mooy am na ñu mu tuumaal ci ñu nekkaloon waaye loolu lépp makaaram lax-lax la waaye seetluwuñ ci moom lu ñaaw nañ ay gaalam ngir jot ne ay jaasee ngi ceeki ngànnaay bañ ubbee fekkuñ ci dara ca jëfandikoo na makaaram lax-lax bañ dajjee gaalam xotti miiru këram muy ci daaru mar naan ci xew-xew bu doy waar ba bu ñu àndoon koog waaju jëmm jooju ba mu jol ba mu jàllee la njëkk def ba muy ñaan ñëpp la ñaanal makaar ma wax laa foofu la ma neem yaa yaa man jalla an xawadin jëfandikoo na baat bu am ne xawat muy ko def mooy war ne ne ñii naa fayantoo ñoom fayantoo yi naa fayantoo ak ñoom ci baatin bu ñaanoon yàlla dañ ko yàlla mi nga xam ne yaa gën a kawe ba doo fayantoo kenn yërëmal ñëpp foofa jëfandikoo fa baat bu diis mooy alwara ndax ñako don togn amna am na ci ño xane duñu julit bu neewon woon jullit yi ñooñu duñ ci dugg waye ñepp la ñaanal kon jëfandikoo na makaarimul axlaaq xamé nañ ci ni bokku na ci li tax mu noto nonam yi ba nga xane dara xewut nek na fa ba yàgg fa jóge fa salitut ben yoon mom señ bi defut len ragalut macha allah waxu fa lu mu waxit ndax lu mu fa waxon ci safan tubaab bi dañ ko genné ca non yoy ñoo mujj ko seeral rafet dañ wax né haqqi ma shahidal a'da'u ca non yi xam nga lañ ko rafet né ca lolu kon lim ne jikko ju rafet day tax nga not say noon te doo warante ak ñoom doo dàggasante ak ñoom lool gëmme xamee nañ ko ci sëñ Tuubaa ñun sëñ Tuubaa no kii na ay noonam bu baax a baax ba mujj na sax macha allahu taala bàkku ci ñoom bu baax a baax dem na ba daan sax afawtu anil ahdaai xaxartu macha allah jëfandikoo na baat yooyu lu bare bari waaye da ngay xam ne la ko may yàllaa ko ko may waaye bokk na ci lim jaare jikko yu rafet yi ko yàlla mayoon ba ni mu doon jëflante ak ñoom li muy yàgg-yàgg lu rafet la ca macha allah tubaab yi moom jàpp naa ne bu fekkoon ñuy naw sëñ bi ñu koy xam ne ñoom ñoo ci gën a kii ndax yàgg nañu moom jaxasoo nañu ñoom mm-hmm. moom sëñ bi bokk na ci li muy wax it mm-hmm. euh, ci ci lu mel noonu ne bokk na ci liy mayee makaarimul axlaax mm-hmm. mooy fonk téere yàlla bi téere yàlla bi dëgg la ndax alxuraan jikko yu rafet lay jàngale xam-xamu njëkk ñaa ngi ci woon xam-xamu ñu mujj ñaa ngi ci woon neena bokku na ci li nga xamne moy maye makarimul akhlaqit moy mooy ci ñet yi nga xamne mom sëñ bi neena ci la taxawal yoonu murid moy ilmun nafi' amalu salih wala adabul mardi kon day melne li sëñ bi ne moy moy moy basam moy symbolam lépp day delluwaat ci jikkoy rafet comme ni la ko wax neena inna kitaballahi fihi fiihi ma farraqa fi muallafati fi muallafati al ulama wa jaa minha al ilmu wal amalu ma taaddubin bolé lépp kon neena kuko bolé kon da nga kulle jamaa da am lépp. Mm. kon ku bëgg a boole yooyu yëpp nee na euh, euh, da nga bu ku am loolu mu wax daal da nga boole jikko yu rafet yëpp. Mm. loolu dooy na sëkk ci li sëñ bi wax ci makaarim axlaaq mm. mu jëfandikoo makaarimul axlaaq ci jëf. lu bari loo xamante ni du lu mu bind. li ci bind bari na nazman wa nasran wax naa léegi ne la jégal na jégal na jégal na noonam yi jëfandikoo na makaarimul axlaaq sàkku naa jégalul ñun ñëpp. fa innahuma in asawka yaa ahad li xaflatin lam yushriku bika ahad xam nga dem ba naan yàlla sanoon yi jéggal leen wallahi buñ la tooñee it dañoo sàggan rek waaye duñ la bokkaaleel mu ko yow yàlla na xam ne seen yaram wii de wallahi attanut sa balaa bi loolu jikko ji rafet ñi yàlla na nga xam ne seen xol de lu ñàkk-ñàkk solo seen xol yàlla rek ci nekk yow rek yaa ci nekk yow yàlla na xam ne di seen cër yi rëcc rek de moo tax ñu def yenn yu bari kon nag yow yàlla subhaanahu wa bu leen toppee lu ñàkk solo li ñu def ca yow yaa a mat maanaam mbugal leen jëriñu la dara falaatu wax sum bi ma laa yan xusu lii la def dula wañi dara yow yalla yalla xam nga togn ko def safan du ko wañi dara kon nag may leen li nga xam dula du jëriñ dara moy li nga xam mom mom la yor kon nañ jëfëndiko jikko yu rafet jikko yu rafet yoyu njabotuk seigne touba gi jëf nañ ci lu bare bare bare ba ci soxna may moona mbacke mi nga xanté ni mom mom lañ ci waxé lepp nit ñi jëf jikko rafet rek mi ngi tambalé ci ko xam boko jubé mu rétane la wax ji di wax ji rafet lay doon soxla fa indi dan la ko fajal moo xam soxla si àdduna la wala seen soxla su mën a doon kon xam ngeen ne loolu foofu la jikko ju rafet foofu la ma neemee boo xoolee sëñ bi jikk jikko ju rafet ak yu rafet joxe na ci misaal yu bari maa ngi ci joxe misaal mu ñu jege Sidi Hadj Malick bi nga xam ne jóge na fi 1922 taxawaay yu rafet yi nga xam ne sëñ mag bi amoon na ko ci makaarimul axlaaq foofu la ma neem ndax ñoom ñaar leen boole bari na nasab boole na leen askan jikko ju rafet boole na leen bokk bëgg-bëgg boole na leen bokk rootukaay muy teenub tasawuf ñoom ñaar boole na leen bokkoon it nag ci ñi yàlla boole ñu bokk Sénégal gii rek jëf ci rafet ja mooy woon na ca ñi xam ne doxeen woo xamante ni ci dëj ba day mel ne moom moo moomoon xew-xew xew-xew ba délégation yu bari yu wuute na ci délégation bokk la ñu sant Bousso ñoo ci demoon am na ci mbooloo moo xam ne maam Cheikh Anta sunu dégg nga yemut ci loolu di joxewaat ndigal kenn ci ñu ko jege sëñ maam sëñ Mbacke Bousso nekkoon na yaxal xew-xew boobu na na defal marché ñooñu Euh, tey wane ne diine moo ñàkk loolu jikko ju rafet foofu la gën a mën foofu la gën a am mooy defal na ñi ñooñu amoon tiisoo dal seen kaw muy jullit yi fi nekkoon Sénégal waaye nag macha allah lu mën a man ci masla foofu la mën a yem gis nga marché bu neex boobu sëñ Mbàkke bu ci def te marché yàlla ci sunu maam alhaaji Abdoulaye Niass ak sunu maam alhaaji Malick Sy def na ci lu rafet rafet njabootam gépp noonu lañ doon doxee Cheikh Modou Moustapha macha allah foofu la mën a yem jikko ju rafet taxoon na ba li ngay dégg ku ne fi la sëñ Tuubaa tegoon mu teg la fi daanañ wax ne daana dem ci maam Cheikh Ahmed Cheikh Ahmed Sakhir euh, ci Louga mhm. joxoon ko cër loolu it fonkoon ko bu fu musaa dem mhm. moo ko sëñ Fallou ni ki noonu seqoon mhm. nag moom yi baree bare bari gis nga benn yoon ci fa sëñ demee sax ci la maam Cheikh Ahmed Sakhir euh, Mbaye wooyoon euh, defoon bay du siw yooyu li laay xaw mun ja xala bi man jilatin xala na daaw ala fil jaww bi seq nañu ak moom it lu baree bari ci teraanga waaye tegoon nañ ko bu baax a baax a baax joxoon nañ ko cër cër bu kawe kawe kawe day mel na ñoom koo xamante ku leen mag cër bu waajur la ñu daan jox mooy fi ñu xoole sëñ bi lañ lay xool ku tolloo keneen seen nijaay cër boobu lañu lay jox ku ne rek daal fi nga war a nekk lañ lay ni ko noonu ba tey sëñ Mbàkke Buso cër bu mel noonu lañ ko joxoon maam Cerno Ibrahima Faati ni ko noonu waxee na seen bàyyi bopp bi nga xam ne moo leen jàngal leen bañ na ar leen bañ na nar maam Jaara ni noonu gis nga sëñ Fallu ngir jikko ju rafet tax na sax bi muy defar jumaay maam Mor Jaara ji dane woon àllarba jum ko war a jox la ak saxalon dem diko ko ji ak fonkon ko lol gis nga way yu neex yam koy seigneur wër Moustapha ci jox ben misal dañuy wax ne bi ñu def xéru juma ji señ tok di xaré señ ñone indi señ mbacké Buso ngir mu wara a taxaw teg xeeru jumaa ji donte sax tegu xéru juma ji mu muju fekk né señ mbacké tambalé jëm mak waye mom moko ko taxaw ak euh ku melni señ sëñ Buso jamono yoy defena ak señ Modou Xari ñoy bokku na ci gën a ko ak ñi leen doon jappalé waaye dañ ne bi mu ñëwee moom benn bang bi suñu madu suxaane woon bi suñu mbàkki bu soñee dañuy wax ne da ko dafa jóg taxaw jox ko ko mu toog ci mu taxaw tiim ko ba jëf jàgg ma kaari mu la xalaax suñu madu suxaa jàngal nañ jikko jàngal nañ ci jàngalaat boo nekkee ak ñoom ak nit diine da nga leen di jox seen cër ku nekk ci askan wi na la woo na sa mbokki bopp ñu sant bu sa ñëpp daanaka jëkk kenn desut si gis nga way ci sëñ Mulaay wayoon ak ak njabootu sëñ Mbàkke bu sa booba sëñ Abibu Mbàkke nii fekke na ko kaneen noonu waxi nopp bañ demee bay war a tudd dëkk bi sax mu ne sëñ Fallou tudd ko nee nañ moo ko tudd nee nañ moo tudd dëkk boobu nga xam ne mooy taayif ci bayitam yooyu nga xam yaa taayif yaa taayifan yaxshan waaye ba dahrihi lu zibil xalifati mustafa fi taayifi fi taayif yi googu mooy taayif gi makaarimul axlaax foofu la gën a mën a yem joxe nit seen i cër nekk noonu ba tey sëñ Fallou euh, noonu noonu la ko joxe naa ci exemplaire yu rafet li nga xam ne moom la ko sëñ sëñ Mourou Moustapha defee sëñ Fallou ko noonu gis nga doxee nam Cheikh Ibrahima Niass xaritoo lañ lool. benn mbokk murtaniya boo xam ne taalibe bi la Cheikh Ibrahima Niass dafa mos a ñëw fii ci tubaa euh, suñu xarit bu baax. Euh, Cheikh xaajoo Hadj Al Mousri maa ngi ko boobu Cheikh Modou Lamine Baara moo fi nekkoon. bi euh, waxtaanee ndeysaan bi fi suñu caal gi doog a jógee ci daj bi rek. Mmh. mu ne ko dafa am lu lu lu ñas defaloon ak sëñ falo mmh. loo xam ne daan sëñ Fallou fonk woon a defaa daana def ak moom mooy mu aanaqa muy nuyoog moom mm-hmm. daanaka moom laa bëgg nga fay moom laa bëgg def ak yow tey sëñ Fallou euh, sëñ koy def ak moom mm-hmm. euh, sëñ Fallou gis nga am yooyu ak bàyyi lëngoo ànd ak moom ba ci biti mm-hmm. waaye loolu makaarimul axlaax foofu la gën a mën a yeme waaye ak wan nit ñi bind sëñ Fallou da daan feeñ ba ci jëflanteem bu baax a baax am na ci loo xam ne xaw naa biire moo tax neexut a wax waaye maa ngi lay jox misaal ci ci mbootaay gum taxawaloon yàgg na lépp rek makaarimul axlaaq ba mu jeex booba dañuy wax ne dafa jegeeg bi fi dégool dégool ñëwee ba dellu visite boobee mu fa defoon nga xam ne bi mu ñibbee la Sénégal di war a am indépendance ci yi at mi ci cam xam naa doon defaale genre référendum di dégluwaale ji ñi ba xam lu ñu bëgg ak ginnaaw bi nu ñu bëggee fi doxee ni ku bëgg ak ku bëgg am indépendance ba mu ñibbee am na ndaje mu suñ fàllu woote woon lépp makaarimul axlaaq la déglu li ma lay wax foofu la mën a yem dafa dem fekk daana wax baat bu am solo maam ak ci bokk yi maam ak ci talibé yi talibé la jappé bopam ci seigne fallu ndax doomi maam Cheikh antal ci si maam Cheikh antal talibé seigne Tuubaa don woon la waye seigne Modou Mamoun magi seigne fallu la moko ko ëppi at sëñ Modou Mamoun ño bokk baye mok seigne fallu ndax maam Cheikh antal ko jur seigne Modou Mamoun seigne touba ko yar ci ñi yaroo ci kër seigne touba la bokk ñu ñi ñi dañ ñu wax ni seigne touba ñu daan waye sama ñetti taw yi bokk na ci Modou Mamoun Mbacké mom Mamadou job Massamba yakarna lol ki la ñettel seigne Modou mo seigne Modou Awa Balla waaw yakarna na wala sëñ Modou kon Balla kon kon seigne Fall jox ko ter ba fekke ko loolu makaarimul axlaax la ba ñewé ba mu wo kilifa diine yëpp ndaje ma rek liko liko li lepp rek bëgg l'islam kawé ci Sénégal ci dëgg ñom kilifa diine ñu téyé ko ndaje ma bam jallé bañ formé bureau bi seigne Fallu ñaneen ñi la ci jittalon ci ter yëpp change du nuru taal moom la jittalon mom la mom la ko jittalon ci ndaje ma nga da koy jittal doga jël keneen tek ci keneen ku dëkk Tuubaa masalan ab murit wàllu secrétaire yaa ngi maanaam yu mel noonu Cheikh Ibrahima Niass sunu waajur bu baax la ci jiital doo ko jël sëñ Cheikh teg ci kon ndaje ma nam ko wootee nam tëriki bi lépp makaarimal axlaaq mooy joxante cër ak ku ci nekk it sàmmonteeg machaari nit ñi noonu la defee ci doxalinam wépp ak ñeneen ñi sëñ bi joxe woon ci beneen leçon bu am solo xam naa moom lay tëjee mbokk mu baax mu nekkoon àndulaay sunu mbokk Cheikh Mouhamad Lamine Daraame defe naa la tudd ku baaxoon bokkoon ci tarixal xaadiriya amoon solo lool mooy ki nga xam ne nee nañ moo demoon ca makka aji makka mhm. nattoon kaaba kaaba ga wala boog barab yonente ba ni mu toll mhm. ci buum indiloon ko sëñ bi mhm. xam nga sëñ bi daa bëgg foofa ba rek sëñ bi fonkoon na ko lool bi mu fi jógee yàlla dogal amutoon njaboot loolu nag diisoon ci waa Sénégal loolu surtout mag ñu baax ñi fi nekkoon xam nga rek lim bàyyi woon ci xam-xam lim bàyyi woon ci téere ba noppi nar a naax saay noonu nar xam nga loolu métti na taxoon na ba sëñ bi amoon na ci taxawaayu moom ñoom sëñ bi amoon na taxawaayu rafet rafet ci ginnaawam eh, maam Cheikh Anta mi liggéeyaloon na ko ci lu bari yebal ko fa Cheikh Issa Dieng mi noonu mooy taxawaayu ba mooy taxawu ko ba ginnaawam na mel ne dara xewut ñu demoon jëli boobu def naa kenn ku bokkoon ci njabootam nekku fa woon ñu ngi neen def naa def man dañu mën tëngee indi ko samp ko taxawu ko it ba loolu mën a wéy ba a wéy xam ngeen makaarimul axlaaq mooy loolu ndax mooy matal nañ ko lëre ginnaaw bi nga xam ne jógee nañ fi kon loolu sëñ bi masal la moo xam ne mu yaatu la li mu sëñ bi wax ci makaarimul axlaaq bari na li ñu ci ñaan bari na yàlla na yàlla nangu lépp rek wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi koy tëjee di ndokkeelaat bu baax a baax euh, jullit yëpp ci fan yu tedd yi nga xam ne ñu ngi ci nekk muy koor ak fan yu tedd yi ñuy jublu si muy fukki fan yi mujj ci koor nga xam ne mënees na ne jàpp nañu bu deen yu gën a tedd am na ci mooy ci gën a tedd ndax ci fukki fan la yi nga xam ne ci la ñuy wër yéen layatul xadri comme ni ko yonent bi sallallahu wër ci bis bu tool ci fan yu mujj yi alhamdulilah dajeeg ren ji ñu war cee def layatul xadri ci ñaar fukki fan yeeg juróom-ñaar yi ci guddi ñaar fukki fan yeeg juróom-ñaar yi mooy mooy mooy mooy mooy xëytal weer ngeen ko gëm ba bën a gaa gën a xame loolu di yeneen ngeneel yu bare bare fukki fan yu mujj yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi fekk da ci daan i'tikaaf Sëriñ Tuubaa mi radiyallahu ta'ala da ci daan i'tikaaf lu daan ci daan i'tikaaf ku mel ne sama sëriñ man Cheikh Mourtala sama turando mus li ma ko xam lépp da daan i'tikaaf ci fukki fan yu mujj yooyu euh, kon nag euh, daal fukki fan yu tedd la yoo xamante ni mi ngi jublu si nañ ñaan yàlla lépp lu ci xewal ak yàlla nañ ko am ca lépp loo xamante nii nag koor dana ko jariñ muy fóot nit ki ak yëkkati ko yàlla ñu ko yàlla may ca bind bi ñu doon jàngalante wax waxtaanante ñun ñaar bu baax a baax ca ca mbokk ci waajtaay layatul xadri yi ñuy waral def ni 2022 incha taala sunu mbokk yu baax yi waa kër sunu waajur soxna may munatu mbàkke di ko taxawee ci jiital cheikh mahmadul mahfous ak ci taxawaayub sunu mag yu baax a baax di sunu xarit sa sëñ la Lahad Mbàkke mooy makaarimul axlaax ñu xam ne bind bu am solo la message bu ñu jàllale ci laylatul xadri makaarimul axlaax lañ ci war a jiital ndax nee naa la doy na sëkk yowmal xiyaam de xam ngeen ne moom mooy dëgg ci dana ñëw ca loolu la ñuy njëkk teg ci ci balaas di ko peese jërëjëf maa ngi santaat bu baax sëriñ Abo Talxa sëriñ Abo Bousso sunu rakk sunu xarit sunu wëlëri sunu sëriñ di santaat bu baax a baax alxadimiya ci niñ baaxoo jëflante ak ñoom di ko jaar la ci suñu mbokk mu baax mi sëñ Mbàkke Mbegere waa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamin حمدا لمن أكمل يوم الحمد لله المجيب ذي القدر من خصنا فضلا بليلة القدر معظما لشأنها في الدهر حتى غدت خير من أهل شهري وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين jërëjëf Serigne مرتضى بوسو ci waxtaan wu am solo yi ñu doon waxtaanee جيكو moom jikko ju rafet ak yaakaar naa ku topp waxtaan wi di nga gis ne lim indi ci taxawaayu yoonu murit ci jikko ju rafet tàmbale ko ci jëmmi Serigne Touba di laanu mi nga xam ne moo sos yoon wi ak njabootam gi nga xam ne eh, gis nañ ci ñoom ay jeexiti jikko yu rafet yoo xam ne yegg nañ ci fu kawe kawe fu kawe njort kon Serigne laa ñu ngi lay sant bu baax ci waxtaan wi am na solo lool ñu ngi lay ñaanal sunu borom mu dolli la kàttan gën a yokk xam-xam bi te gën ko barkeel. Euh, te ndax lii lu am solo loo xam ne mboolem ku ko topp dina ci jariñoo ndax xam-xame na te tegu na ci teguwaaju leer ci ay misaal yoo xam ne yuñ mën a teg baaraam la rawatina ci njabootu sëriñ bi kon waxtaan waa ngi noonu jikko ju rafet mooy yoonu murit yoonu murit mooy jikko ju rafet ñu ngi sant bu baax a baax Al Khadimiyyah TV mi ñu àndaloon di sant bu baax it comité scientifique bi nga xam ne ñooy organiser waxtaan yi nga xam ne mu waaju ci laylatul xadar ngir di ko waajale laylatul xadar gi di ñëw ci 28 avril 2022 ñi ngi sant bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne ñu ngi doon topp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulillahi ma sant yàlla julli ci xëyrul xalqi rabbun jàlla alhamdulillahi ma sant yàlla julli ci xëyrul xalqi rabbun jàlla wa baadu maa ngi taalifal maymuuna mañ naa saxiira waaye mag la moona mooy bint sayxina alxadiimi caat ma moo tax ba mboolem mag ña jox ko war ma mu boole mbóoti taaw ya ak yoy caat ya donn ca mbóot ya nekk tey baag mbir ya jàng nga jàngle nga wooteeg màggal fii laylatil xadri yaa koy sellal weer wi nga wootee gën ci mboolem weer yi guddi ga moo faw xa mboolem guddi yi foo tudde laylatul qadar ci réew mi xel yépp dem ca soxna may fii saw mi